wax leen ñu taalaa wa dafa am yóbbal bi nga xam ne dama koo indi fii ngir jëmm jiy toog ngir jëmm jiy toog ngir jëmm jiy toog Sénégal est-ce xam nañu kii Sénégal est-ce xam nañu jëmm ji loolu laay Sénégal est-ce que xam nañu jëmm ji toog est-ce que Sénégal est-ce que xam nañu Thierno loolu laay laajte Sénégal est-ce que xam nañu Thierno loolu laay laajte Sénégal est-ce que xam nañu Thierno loolu laay laajte lan moo tax ñu lay xeex lan moo tax kilifa diine yi di la xeex lan moo tax kilifa diine yi di la xeex suñ la xamoon duñ la xeex man ba may wàcc si àdduna gën di moo ngi fàttali ba may ñëw ci àdduna yeneen te yàlla eesa wàcc na sëñ Tuuba ba mi julli ci géej gi laa jóg ndax ci géej gi laa dëkk ci suufu géej gi laa dëkk waaye depuis jeudi laa jóg ndax gis ñaawteef yi ñuy def gis ñaawteef yi ñuy def ma dugg xale bi ndax yaram gi dafa set dënn gi fees dellal alxuraan te moo ci yeneen te yàlla eesa la bokku de ma di ñaan ma di ñaan may di ñaan rus naa de man dina ci rus naa waaye bu dul loolu ki def melukaan gi daal di la yónnee ab destinaire daal la ciy xaatim def ci def ci ñaaw def ci bon def ci yees toroxal nga ko waaye toroxal naa ko ba mu ne tot ndax ku la war a toroxal ma toroxal la yàlla la fi teg sa yaram bi allahu sa gémmiñ gi allahu loxoy allahu tànk allahu laa ilaha illallah muhammad rasulullah yow rek laa fi doon xaar depuis démb ba tey ngir nga wàccee ma ci gone gi ku baax la ku yiw la ku baax la ku yiw la gone gi gone gi dina am teraanga may ko teraanga may ko teraanga may ko teraanga am na loo xam ne bëggoo ko waaye dinaa ko fi wax <coughs> bëggoo may déeri faral di wax ay waxi jàmbur waaye dama bëgg kii di kilifa gii di Youssou Ndour maa ngi la koy wax maa la koy wax maa la koy wax waxal ma ko yóbbante gii mu yabal ma ko ci gone gii mu teral ko lu ma wax rekk am naa lu tax laa ilaaha illallah maa ngi lay yebal laaj ci kii xale bii jóg ku nekk ŋàññu ko ku nekk ŋàññu ko mayib yàlla nit da koo mën a génne waali sekk waali sekk nu wuyu ji gone yóbbal lii laa amoon li ma doon wax ci ceer na mu lay soo ndax sonal nañ ko lajal nañ ko waaye nag yàlla da laa rus loo ñaan yàlla mu nangu loo ñaan yàlla mu nangu loo ñaan yàlla mu nangu loo ñaan yàlla mu nangu loo ñaan yàlla mu nangu sama xol bi tàng na jëppët jëppët jëppët depuis ba ma nekkee ci àdduna ba tey soxla bu ma munti am gone gii rek lay àndal moom rek lay dugg soo paree nga wax ma man la kan ma wax la fu ma jóge ak fi ma cosaanoo lépp nga xam ko soo paree nga daal di may yeewu toog sa kër gi di la liggéeyal ci darajay Seydina Muhammad ndax lan ñaaw tëj bi njëg sama sëriñ sa jinne yee ma si gide ndax ab mag laa ba ma fi dugg see démb jinne yëpp a tiit gis nga sa jinne ju ñuul jooju nga daal di yebal nga xam ne lu muy ray rayee ko lu ñuul lu muy bëgg bëgg lu ñuul yebal nga ko waaye yebal nga ab mbër yebal nga ab gaynde du ko defati de maan bokk maa lay fi lay man maa ko yëngal ba fi ñëwee depuis boobu ba tey mu ngi nelaw mu daw a yeewu man maa ko yëngal jox ko toroxalam ba mu ma sëkk soo paree nag da dem ci Thierno mu joxaat la sa toroxal dangay jàng bon man damaa xamul lan moo tax dina ji ndaw bi rek ne la ñoo bëgg a fàttali Thierno mu. xale ba xale bi nag ak bisaane da kaa xaw a sonal waaye taamu ci kenn. saa yu tëddee ma jox ko nopp yi ceerno ceerno ceerno yow këyit sax soo ko paree tubli si takkal ko nit mu doon ab téere wala nit ñi dañoo xamul loolu may ma nii ma commencé fële raam ci sama sëriñ lakka boo sax dangay door li ma soppi ci yow ba too ko defati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sayidina muhammad sayidina muhammad sayidina muhammad bokk ci kan bokk ci kan ci askanu Soundiata Keita dafa bokk ci kan ci askanu Soundiata Keita laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah ku la toroxal torox tot ku la toroxal torox tot ba may ñëw ñi ma àndal ñu naan ceerno mi mbaa séeriti mbir ceerno mi mbaa deful lii ma ne patt rek di déglu te dangay dimbali nit ñi te yàlla tax waaye am na ci ñoo xam ne dimbali nga leen dawar nañ la ba ngi leen dimbalee ba tey kenn teg fi seeni tànk waaye yàlla gis na lépp allahu allahu sa bët yi allahu sa bët yi allahu ceerno macha allah macha allah di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga gudd fan di nga bëgg tatatata allahu akbar laa ilaha illallah ci am maa ngi tudd Aysatu yàgg ci jamono ba ma fi yegsi gën mbindeef wàcc na ci sama kanam gën wàcc na sa kanam macha allah jërëjëf yenente yàlla instant wàcc na si kanam yenente yàlla di sëñ Touba mu wàcc ci sama kanam keroog ba muy julli ci géej laa si gis si jootul mhm. kon yow yàgg nga ci àdduna bi yàgg naa man su may dox sax damay sëgg booy dox da ngay sëgg kon. jinne yi ñoo ma siggil. dëgg la ba ngay dugg si da ngaa sëgg. nañu xam ne ku yàlla baaxal. Mhm. kenn mënu koo toroxal. dëgg la ki fi yàlla teg nañ ko nangu. Mhm. buñ la yóbbu woon feneen est-ce que Sénégal dinañ la jot. kenn du la jot. dëgg la macha allah. macha allah mhm. macha allah. fii ku fi génnee ji na wala kaana. ku fi génnee ji na dof. man maa wax lii. <laughs> nga ne. ku fi génnee jinne waaw dof. Mhm. waaw ku fi faj jinne dof. king roi di jinne. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Thierno Thierno Thierno Thierno Thierno. mu toll nii nag mën nga maa yeewi. léegi yow la kan. yow la kan. man ay Aysatu. Aysatu Aysatu naka. Aysatu jaabali. jaabali xale bu jigéen bi nu mu tudd soxna si moom nu mu tudd. mu ngi tudd Pauline Gomes. kañ nga ko dugg. xale bi àndandoom laa. ndax saa yu ma gisee mu nar am ay tolof tolof damay taxaw dimbali ko aar ko sàmm ko. bërëb ba muy liggéeyee keroog ngelaw gu ba da ko a dugg ma gis def tu ñaaw dañ la defaale ma bañ duma génn am mission yi ma ko liggéeyal daal koy bàyyi su ma jàkkee ba jàkk bëgg a am lu ma yëngal moom rek laay dugg dënn bi fees dell ak alxuraan te moo ne dafa bokk ci ñoo xam ne yenente yàlla instant la moo bëgg a won ni rek àdduna moo bëgg xamal ni àdduna nañ bàyyi jëf ju ñaaw wi kon yow jigéen la jigéen laa soxoroon nag bay bëgg dee mhm. waaye keroog ba sëñ Tuubaa di julli ci géej gi mhm. la soxoraay dañ mhm. ndax damaa yéemu ci yàlla mm-hmm. ndax der bu xonk nam ko doon toroxalee mm-hmm. mu daal di mucc mm-hmm. ba mu jullee ci géej gi sëgg siggi joba takk suuf man ma nekk ci géej gi si laa jombi si laa waaru ma ne nag ndagam àdduna lii jar na ko dama daan liggéeyal iblis danga daan liggéeyal iblis iblis laa daan liggéeyal ma doog a xam ni nag iblis mii day fen nga doog xam ne iblis day fen léegi nag yow jullit nga fu mu nekk nii. ab jullit laa. ab jullit nga. waaye nag. Hmm. won waa àdduna magum jëmm magum jëmm jébbalu ci kii jébbalu ci kii nga def mag sa taalibe ma nekk ak yow. Hmm. toroxal ñi nga xam ne nee nañ dañ lay xeex sëriñ si xamul dara si. dañuy sonal seen bopp sonal nañ seen bopp ba pare. doo hmm. dootuñ ko defati de. ma xeex torox. do waaye yow dangaa déggul li ma la wax. allahu mm-hmm. maa ngi lay seen mm-hmm. di gis sa bët yi allahu mm-hmm. dañoo yaakaar ne ab nit a toog xamuñu ay ku ci xamoon du ab nit nañu réglé nañu réglé man keroog ba nga jàppee bul dëkkum laa naan ah tàccu bul dëkkum nga xam ni fii lay xeexi ku mu ne tël fële ngay dali na nit ñi ragal yàlla ñaawteef gi bari na ci dëkk bi na nit ñi ragal yàlla na ñi ragal yàlla na nit ñi ragal yàlla na nit ñi ragal yàlla na nit ñi ragal yàlla mbokk yi dégg ngeen Jinne mooy wax nee na nit ñi ragal yàlla moom ñoom bu ñu demee njiitu réew mi njiitu réew mi fii yëpp jël na ko fii yëpp jël na ko fii yëpp jël na ko man fu ma dëkk solo lu ma ndax man ci mu ne njiitu réew mi jël na jël na lépp fii yëpp la jël na bàyyil jinay espace na bàyyil jinay espace fa ñu dëkk fa ñu dëkk fa ñu dëkk ndax lu am solo la lu am solo la lu am solo la lu am solo la lu am solo la defe naa ne xale bii ma topp nga xam ne dafa rasis rasis bay bëgg dee bëgg yoonam bay bëgg dee defe naa ne waaye sëñ Saaliw da koy feeñu mm. ma xam ni gone gi nag dafa xaw a ragal may muur ay bëtam waaye ab leer gu ne ci gone gi wallaahi billaahi man maa la ko wax jël ko bëgg ko ndax dalaa bëgg a gis mm-hmm. su la gisee sax dina jooy jërëjëf jëlal ke ku mu àndal ki moo ngi jooy après ñu laaj leen ñoom ñi ànd ak moom lan mooy seen tànk fi macha allah mbokk yi gis ngeen ci démb moo ngi fi di wax wax na fi ay kàddu yu am solo waaye tamit ñu laaj mbokkam instant bi jinne mooy wax jinne mooy wax gis ngeen moo ngi ànd ak fii ay mbokkam benn uh, mbokkam moo ngi jooy parce que yéeme na bu ko defee ñu laaj mbokkam yi ñu jot ñu leeralal waaw ñu jot ñu leeralal macha allah waaw moom de toog na jàpp njàmburam léegi Moustapha bismillah laajal gan googu laaj ko nuyu ko laaj ko. gis nga sëñ ji taxaw. mooy borom këru xale bi. waaw ab jullit la. Mhm. ku baax. soo mhm. gisee nag ma xawoon a yàgg. ndax jëf ñaaw ja nekkoon ca moom. Ah, kii mooy borom këram ma raxas ma ko doon raxas ma ko doon raxas ma ko doon raxas dafa yéeme. sutura dafa baax mhm. ndax li ma baax looloo tax mhm. ma jël sutura ji nëpp ba mu dëgër liggéeyee ko ci seen bërëb ba pare may doog a yegg si fii. ah kon may def yëpp def naa ko foofu. Ah, mooy borom këram mooy borom kër xale bu jigéen bi. soxna si mooy muural ko fii. man lu weex rek laay sol daal daal daal daal. Mhm. ba ah. ma demee seen kër nag ñu jël yeneen ci yàlla ah. instant takkal ma ko nag mën na leen du kii bopp ma ci kii bokk yi defe naa ne borom këram a ngi taxaw macha allah ah léegi nag ñu laaj borom këram moom it mu wax dafa am solo lii boo gisee lii ñuy filmer dañuy gën a yee nit ñi rek macha allah di gën a yee nit ñi di xam àdduna ñoom defe naa ñëw bi ñëw fii sax xam naa ne temes bi lañu seetaan ilaa ñu wax leen ko léegi Moustapha nuyu ko nga laaj. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp euh, Mamour Thiam. fan ngeen jógee. Euh, ñëpp man xaw ma fi woon sax. nan ah, moom lii da koo daaneel rek après mu daal ne damay dem ci Thierno Moulay Sow moom moo may faj man tam ma ne ko waaye man damaa xam kooku. te moom xamul fii kii xamul fii sax mosul ñëw fii laaj naa ko moom mosul gis kii man mosuma gis tamit Thierno Moulay Sow wax dëgg fa xaw ma ko sax bi ma ma ne ko kan mooy kooku man ki ngay wax moo lay faj xaw ma ko. wax dëgg fa yàlla xaw ma ko xam nga donc comme que man tamit aussi ci dëkk bi laa dëkk te. nga laaj nga laaj ci nit ñi la après ma am ñu ma woo laaj leen ñu ne ma waa xam nañ ko ma ne leen dama ko soxla woon numéro ndax mun naa ko am je pense que ñu ne ma numéro am munoo ko am mais mun nañ la jox numéro secrétaire après ma jël numéro secrétaire am woo ko mu teg ma ci yoon donc après. ma ngeen ñëw ñëw ñu daal di ñëw fii waaye. mais bëggoon nañu xam tànk yi fii tey lan la parce que nee nañ ci sa soxna la. waaw sama soxna la man ak moom njaboot nañ yàlla def na lool yàlla dogal na loolu mais man moom li ma indi fii man ba tey sax jaaxal na ma. ah bon oui parce que. xamuloo ko xaw ma ko sax parce que fonk naa su ma liggéey dara mënul tax ma bàyyi ko mais boo xoolee depuis boobu ba léegi liggéeyu damay liggéey tuuti pare ñëw ñëw ci moom soutenir ko quoi. parce que wax dëgg fa yàlla ku baax la koo xamante ni xam nga waaye jàppale na ma ci lépp. moom soxna si waaye moom soxna si waaye jàppale na ma ci lépp kon tey euh, su ko lii dalee lu métti métti damay toog soutenir ko quoi oui. alors ma bëggoon laaj la mooy avant ngeen di ñëw fii jot ngeen dem ci ay sëriñ. waaw non yàlla nag dafa dogal man moom suma lépp sëriñ Saliou la parce que sëriñ Saliou moo ma yar. dem nañ ci ab sëriñ. gu jigéen. ndax xale bi daa xawoon a ragal jaaxle moo tax may am si ku ma leen yebaloon seen xel ma a dal ndax xamuñu ko ma am si ku ma leen yebal mu yor ab tuur tuur gi nag du ab jullit xale bi nag dafa am bopp mu daal di dem dénkaan fa boppam ndax daa tiit te moo moom laa doon dimbali ab xeex. moom nga doon dimbali. mu daal di rocceeku ba ma fa nag. loolu mu roccee la ba ba ngeen a gis loolu. waaw léegi macha allah léegi demal ci jëkkëram ñëwaat rapidement. léegi eh, lii nii dal ko nii yàgg na ko dal. non man nag moom yàgg nañ trop trop mais lii mosuma ko gis. bi ngeen commencé bi nga ko jëlee soxna ñaata at la. waa Euh, yàggul nag bu matee ay deux ans trois ans mais yàlla dogal nañu njaboot parce que ñu woon diine ko waaye bokkuñu woon diine man musulman la moom chrétien je pense que yàlla may ñu ay njaboot après si la dem nag après ma ma takku ko waaye mu nekk bu baax nag wax dëgg fa yàlla waaye ci cadre sëriñ boobu mu leen di wax noonu sax man xawma ci dara parce que yàlla ko yaay moo toog nii quoi moom la doon àndal di dem di ñëw waaw mais moom moom wax dëgg fa yàlla moom moo ne ma kii na mu lay Sow moom moo koy faj. te ngeen xamu leen Thierno Mouleye Sow. aywa ah, déggoo li ma la bi man mosuma xam Thierno Mouleye Sow mosuma ko gis. oui mosuma sax dégg nag wax dëgg fa yàlla. wax dëgg fa yàlla ko dégg mais gis naa si moom tamit lu doy waar yàlla dëgg rek yàlla dëgg rek te man moom dama dëggu quoi. ma xam xam ma ci lu dëggu te du ma tricher. yàlla xam na ni man mii nag wax dëgg fa yàlla gis naa ci moom lu doy waar. lu doy waar. kon mbokk yi ngeen ñu suivre sur la TMS TV defe naa ki kàddu yu mu wax euh, nekk na kàddu yu am solo parce que moom xamul Thierno Moule Sow mosul gis Thierno Moule Sow soxnaam également xamul Thierno Moule Sow. am na mu wax fii dama ne. na àdduna xam ni xale bii du bon xale bii du bon. dañoo na naroon a yàq butitu njurukaayam. dañoo naroon a yàq butitu njurukaayam. mbokk yi. ma def ko muy am doom rek. jinne baa ngi jooy de moo ma si àdduna. ndeysaan jinne baa ngi jooy jumal kanam bi. loolu kese moo ma métti si àdduna ci li ma ko maanaam comprendre ma maanaam mhm. te ñoo bëggoon yàq ba tunjuru kaayam waaw ma daal di gis loolu waaw ma def ko mu gaaw a am doom maanaam mu gaaw a am doom ci nan comprendre duñu foofu jinne ndax bu dul loolu waaw du jur gaaw am doom mooy nan lu loolu wala comprendre dafa am doom te ameewu ko ci néegu sëy ah ok loolu yow yaa ko def parce que da ngaa gis ne su soo deful loolu dañuy yàq butitu njurukaay mbokk yi gis nga lii dafa leer parce que jinne yi dañuy leeral moo ngi jooy. loolu rek loolu moo la metti xale bi dafa baax nit mais loolu est-ce xamoon na ko. jëkkëram daa dem ba loolu mu commencé yàqu ci biir bi mu commencé yàqu ci biir bi jëkkër ji muy sëy ak moom affaire bi day xeeñ xunu xunu xunu xunu sax. ndeysaan yéeme na de. waaye jëkkër ji ku am ngor la. mbokk yi gis ngeen li ku am ngor la man jide maa ko wax. léegi kan moo def loolu. wax naa leen ko moo def loolu. wax ñoom. wax nga leen wax nga wax nga leen ko ki ma la wax wàcc naa fi ñetti fan di def mission ci ñoom. Eh, kooku kooku salopard la ah. kooku xoolal ña bokk ñoom yépp ma fas leen. man jine dafa leen ay bëreetu barbar déere léegi sànq ne nga ma xale bu jigéen bi dafa doon gis ay deret lu ñuul xaw ma ba mu ñëwee. yu ñuul kuk ba mu duggee sa kër gi waaw la dugg ci dus bi affaire bi daal di wadd est-ce que daf ko daan gis daf ko daan gis muy gis mar de yàgg mais ni nii quand même nan la mel ni ni loolu arrêté na wala set na xicc ba mu dugg see ci kër gi loolu la loolu seet la sama mbokk yi jinne yi jàppale ma tradition français bi waaw waaw léegi dafa baax mbokk yi ngeen xam. dafa baax loolu kese moomu métti si àdduna ndax la nga waay nga xasee loolu kese mbokk yi xam nañ bu ñu xamee dañuy xam ne du ci moom. parce que leeral bi nga leeral bi am na solo trop. déjà dafa naroon sànku. dèjà bu yàggee du woon am doom léegi nag yow yaa ko sauvé ci côté boobu mbokk yéen a ngi dégg si nga jinne yi am na ñuy sauvé nit am na tamit aussi ñuy lor waaye lu mu wax fii defe naa ne leer na Moustapha nee dafa am lu ñu ko defoon pour mu bañ a am doom waaye moom moo ko yebal ba mu am doom feneen te bokkul ci sëy bi waaye nee na bu defuloon noonu kii du mun a am doom mbokk yi kon xam nga ne àdduna bi dafa garaaw nit nee naa la nit ni tey garabam waaye nit ni tey posonam gis nee naa la bëñ weex na loolu. waaye moo tax keroog yow ma xiyaam dina métti trop keroog yow ma xiyaam. suñu borom du dugal kenn safara. Mhm. waaye xam nga lu tax mi sàkk ko mhm. nit ak moromam ndax suñu jéggal la tewul nit ñi bu ñu jéggalantewul du baax. waaw waaw dëgg la wax de. keroog àllaaxira. keroog àllaaxira bu ñu jéggalante nit mooy dugal moromu nitam safara. parce que nit mooy def nit lu bon boo ba suñu borom. suñu borom na léegi yéen ñaa xoole noo leen di arranger seen problème moo tax nag nit ñi nañuy def lu baax soxorante bi iñaanante bi liggéeyante bi lekkante bi kii di borom këram Thierno. Hmm. maa ngi la koy ñaan ci darajay Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. na ma ko doon ah, moom borom këram. waaye yu hmm. moom borom këram. xaw ma nu may def na xale bi dafa xaw a ragal. lan moo ko daan sonal. bari na liggéey gu bari du bon. moom liggéey du bari du bon. wax naa ko fa mu jógee fa mu cosaanoo nee naa la ñetti fan maa ngi ci ñoom. di def di def di def ay mission. di def ay mission. kii di borom këram. Mm-hmm. maa ngi la koy ñaan. ci darajay Seydina Muhammad mu ñu bokk. Mm-hmm. bu dee sa dàll wala yére wala kolta may ko ko ndax gàllaa la ñu ma ko yebal fenn fii laa koy yebal mbokk yi dégg ngeen jinne bi wax na fi waaw waaw léegi kii lan la ci moom soxna si moom lan la ci moom soxna si rakk hmm. yaayam la hmm. xale bi hmm. daanu loon sax dem ci moom te rakk yaay mooy yaay waaw lan mooy problème bi lu tax xale bi daawul woon dem ci moom lan la. ñoom ñaar nag dañoo xaw tane ko moom keneen ki la gën a bëgg beneen rax na. Ah, lan moo waral loolu wala mbirum. amoon la daa jubluwuloo nag moom rek. Ah, ok mais léegi jamono ji jublu na ko. jublu na ko. Hmm. ndax def naa ay ñaan bu baax a baax. yow jinne bi. man jinne bi. mbokk yi waa léegi. man jinne bi. mandina bi mandina bi dugal fi mission dugal fi mission tey laa ko terminé tey laa ko terminé ba ma gisee waa ji ba ma gisee waa laa terminé laa terminé am mbégte bu baax ak kontaante wallaay billaa xale bi bu jàkkaarloo ak yow du ko gëmee <laughs> ndax dalaa bëgg te yàlla mbokk yi am na fi. baa ngi jooy. bi ñu jël. Euh, waaw moo ngi jooy jëlal loolu d'abord c'est important jinne baa ngi jooy mbokk yi si yéeme na macha allah. Ah, mu leer kii nga xam ne moo raw sax maamam. du benn sax nag. lu koy dindi. lan moo koy dindi lu koy dindi lan moo koy dindi dama kontaan waaw man jinne damaa kontaan moo koy gis naa gis nga wax naa leen jinne yi bu ñu ma gisee dañuy fan dañ may fan wallaahi damaa kontaan ndaanaan xam nga ndaanaan dëgg boo ko gisee mbër kullif mbër kullif mbër mais boo dee wala kaana boo dee ne defaya boo gisee waaw kaana wala leen gis nga nag ñi mu ànd na xagalal lañ doon wax. waaw seet na moom ñu fajee seet na de waaw jaaxle loolu la doon wax ma ne leen dangeen ngeen a xamul rek lu muy daj. Ah, soo leen xamoon faj ci leen mu méttee. doo leen ko wax. Hmm. ma leen maa leen fi indi waaye sant leen yàlla ba ngeen duggee fii. Hmm. ndax loo nekkoon ci yow dina seet bi ci. fii ko fi dugg am prothèse. lu fi ne newul fenn. fii fi duggee sax damaa yéemu si yàlla diit. mbokk yi jinne fi ne. ay ku dof dof lu ba mu yebal la xoolal nii rek lay def woo sa tur ne nii rek jinne ja <laughs> rek ci neja daw dañoo xam dara sëriñ ju ndaw di nekk ŋàññu ko di ko liggéey liggéey sew lu ne ñu koy def kii dañ koo mënal dara yàllaa ko fi teg man mi jàkkaarloog moom man rek maa mën a gis allahu ci bët yi yéen da koo gis loxo yi man dong maa ko gis mhm. tànk dënn bi man dong maa ko gis ku ko gis fii ma jinne mbokk yi gis ngeen foog nga wane sa bopp nag ñu doog laa gëm ah. gaa yaa ngi gis de benn benn dinañ gis bu gën a ngande waaw léegi nañu léegi nañu laaj rak ko yaayam mu wax maa ngi xam tur ak sant maa ngi tudd Eli Euh, mun na wax na continuer wax rek nga jël li rapidement mu ah? si gilawoon ba mu yàgg delloo ma waat na ma meloon waaye du dara nag dañuy woon àdduna rek waaw ba muy dugg si dafa dañ koo sëggaloo gis nga instant bi sëggaloo nañ ko dañuy woon ne fii caaxaan nekku fi <laughs> gis ngeen ko jëlal loolu da mbokk yi gis ngeen <laughs> c'est le xalif général de jinne le king of the king du mm-hmm. gis nga ko ni mm-hmm. mm-hmm. yegsi léegi kaay kaay toog ni na ñëw toog na ñëw toog ni sant bi gars yi dañ ko sëgguloo gis ngeen ko jinne yi fu pour l'instant dañ koo sëggloo ni nii mënul siggi dañoo yaakaar na waaw gis nga gis nga dañ koo sëggloo fu mu nekk ni mbokk yi xam ngeen ne man ngeen loolu xam nga loolu fekkewu ma ko sax gis ngeen lii <laughs> macha allah lii xam ngeen ay kiraama la <laughs> defe naa ne lu ne fàng nag kenn du ko jeex waaw ah, waaw ah <laughs> moo ngi noonu su la xalif général des jinne mm, the king of ah, waaw waaw moom kay moom nangu rek li nga jotu nangu rek xaaral ñu pare fii mm-hmm. waaw léegi rapidement interroger raf ko yaayam li mu jot a fii lan nga ci muy wax mm, li mu jot a expliqué dina mën naa ne lépp lu yëpp dëgg ndax bu dee wàllu sama côté man ak moom man ak moom boobu ndey baay mën naa ne fi ma dëkk man am naa fi quatre waaye mosu faa ñëw ci kër ji moom kooku moom souvent de temps en temps may wooteel sama doom mu ne mu fi ci jàmm sama ne ko waaw maa ngi sant yàlla li dëgg yàlla maa ngi sant yàlla sama doom macha allah. ndax moom nanguwul ah, xaw ma nag ko téye nag dëgg yàlla koy dëgg la yàlla comme ni nga ko waxee sànq xëy na tamit. am na benn rakkam boo xam ne moo nàmp bàyyi kooku nag moom a gën a jublu nag. Hmm. xëy na looloo tax moom wax na ma. léegi bàyyi leen ko bàyyi leen ko jinne bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko. ma waaye du dara li nga wax dëgg la waaye yëf yi bu mu ko ne patron mu ne ko maa ngi sama kër mu ne soo bu lay maa ngi lay laa jot waaw dëgg la. dama doon dama xëy di fóot yëre xale yi mu ne waaye Paul naa dafa feebar waaye nee nañ koy di sa kër kon garaaw mu ne ma damay taal oto bi ñu indi ko ma ne ko waaye indi ko ci la taal mu ko indee mu ne ma tiit commencé jooy mu def mu def nii mu ne ma santal yàlla bi ma egsi sa kër xam naa di nga ne sama doom lu tax mu dikkee nii santal yàlla ma xam nga man sa doom mosut a jublu fii sa kër mosut fi ñëw mu ngi fii ba léegi mosut fi ko waa dëgg la. man kon euh, man mi ko yebal mu ñëw fii kon yokkal sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax man mi ngi gis ne xam naa sama jëkkër dafa génn àdduna maa ngi ak samay doom loge ne ko waaw maa ngi sant yàlla bu baax ñëw fii maa ngi sant yàlla ñàkk fii ñëw maa ngi sant yàlla mu ne ma waaye sa doomee wax ak yow de man jinne maay wax ak yow ci laa ko ne jinne bi ni ma tudd mu ne ma yàlla tere du ma wax sama tur ci laa doog a dëgg tudd Thierno Biche mu ne ma waaye dinaa la mu ne ma tey la jeudi lundi bu neexee yàlla boo xëyee nag ma yóbbu ci Thierno mu ne avant nga ma yóbbu ci Thierno am ngeen aada yóbbu ma fa. mu ne ma am ngeen aada yóbbu ma yóbbu ma seen aada nga defar ma li may defar ba pare nga doog maa yóbbu ci Thierno. ci laa xëy jeudi boobu yóbbu ma ko vendredi ma xëy yóbbu ko fi ma ko mooy li mu wax noonu dafa egg mu dénkaane boobu man ma dara. waaw ba ma wàññeekoo ak moom ba si yàgg rek mu daal di rek mu daal di ma ne ay waay sa doom bett na ma ne ko lan la man sa doom koy jëlal xëy ba pare ma daw bàyyi ma ko sa doom xott nga àndal man mi ngay àndal fu mu toll te fii ba lëndi nag tànk yu boobu kër Thierno ma la waxoon sa doom ko ah kon d'accord comme noonu nga wax ma waaye man xaw ma fa de mu ne ma xamoo leen foofu boo leen laajtee xam dëkk foo laaj foo laajtee xam mu ne ma de un ah, moom si boppam daf ma ne woon da koo bëgg te yàlla tax jëmm ji te yàlla tax ndax day def lu baax te yàlla tax waaye man xaw ma mun na ma xamoo mun na ma mun na ma dangaa dëgër bopp nag xamoo ko waaye man xam naa ko boo ma toppee rek di di ko xam te boo gëstoo di nga xam kon waa sant yàlla man man du ma werante chrétien daa waaye man du ma werante dara diine yëpp benn lañu ñii ñooy ne fii di wax rek man ko bu lëndee bu neexee yàlla su ma xëyee ñu am ñu ñàkk yëpp dinañ fa def ci kàttanu borom bi kon yàlla dogal tamit borom kër ba mu ñëwee waxtaan ci loolu. leen ci lañ ko indi la ma doon wax waa Sénégal ci lañ ko indi noonu ñu ñëw démba démba fii lañ fanaan sax fi ngeen fii lañ fanaan démb ndax ba mu ñëwee noonu ba yëf yi demee sëriñ bi génn après ñu ñoo ne sëriñ bi dafa génn waaye man xam naa comme nee ma yeeweeku naa ak sa kër kon boo amul bopp waaye xel nay xalaat man comme nee ma yeeweeku naa ak sa kër du ma ko delluwaat sama kër su ko dellu sama kër laa xaw ma lan mooy dikkaat ma ne ko diw boobu fekk dikk na ma ko pël naa ma ne ko fii mu ne ma xam nga yow gisoo dara moo tax fii ay mu ne fii boo fi ñëwee am kii sa lépp kon jeex na kon melal laa jinne amu fi mu fii jinne yu baax doo fi nekk nag gaa ah. ab ci laa ko dalal dalal noonu dalal noonu moom ba si yàgg kon garaaw nañu fanaan nañu fanaan ba ci biir ci lañ tëdd moom dafa ne amul nelaw waaye mooy bu muy nelaw sa ko ci la yow suba seet mu daal mu ay man de yaay de xaw ma man ba muy nelaw sa yëgu ma jinne ñoo ma nelawloo ndax daal moo ñel ñun ñii jeudi ba léegi man ak borom këram du ñu nelaw ñu ñooy bokk beneen plat bi ñuy tëdd hmm. sama kër lañ nekk ndax jabar ji bu mu jógee ci laa ko woo téléphone ne ko laa sa jabar ngi fii tey ba sànni ci ngoon ba tey ji ñu kon nag mën naa la ko yàlla bëggee woon dafa ci mbir mi mhm. yow ak borom këram mhm. ku ci laaj mhm. nga ne mosoo fii waaw dëgg la moom te xamuloon fii turam sax ma ko woon waaye moom moom na ko nekk ne moom nekk jekk nee na mos na koo bëggal boppam moo ko bëggaloon boppam nag te loo tax rawaan itam ba mu koy sonal mu ne comme yow bëggoon li ma la sonal kon dinaa la yóbbu ci ceeb waaye wax yàlla musuma xam trop waaye moom nee ku baax la ba muy ko damay dégg ñu di ko wax waaye musuma xam fan la dëggee waaye damay dégg waaye man it musuma gis jëmmam am na lu mu fàtte sama borom dafa ma bu mu paree ci loolu génne Thierno naa photo ma bu ma eggee def photo sama nii yow rek wallaahi di nga gudd fan waaye sant yàlla wallaahi di nga gudd fan wallaahi di nga gudd fan di nga gudd fan wallaay di nga gudd fan yeewi ma kee maa ko jàpp tey bala ngay ñëw jëndi naa ko ba mu saf saf ma ko xam nga lu ma lay yëgal sa kër nga moom waaye fii may boroom foofu nag mën nga ma faa tere ndax yaay boroom waaye fii kër ceeb na gii maay boroom boo ma gisee sama karaw gi ñii gisuñu ma waaye gis yow gis nga ma weex taal yow gis nga ma waaye ñii nii toog fii ay dof lañ kenn gisuma macha <laughs> li toog fii ngeen yaakaar nit ngeen di jàkkaarloo du am nit de bant dong ngeen seen génn nag dimbali ma nag mbokk julliti mbokk taalibe yi yéen a ñuy seetaan ci TMS TV dégg lu jinne bi wax dégg lu borom këram wax dégg lu yaayam rakko yaayam lu wax ñoom dèjà xamuñu ma woon mosuñu dégg mosuñu ma seetaan waaye jinne bi moo leen indi ba fii mooy li may wax rek nee naa leen fii macha allah jinne yi dañuy ñëw fii. jinne bi moo leen indi fi xamuñu ma ñoom lu ñu wax xam nga xamuñu mosuñu ma seetaan <laughs> waaye ñëw nañ ba sama kër lan moo leen fi indi jinne bi maa fi indi te man man jinne waaw man jinne maa leen fi indi mhm. dèjà nag jinne bi eh, lu tax mu indi leen fii dafa am yaakaar fii xam na li fi ne nee naa leen bu nit ñëwul fii sax jinne yi ñëw te dèjà jinne yaa ngi ñëw te ñi ñaa ngi ñëw wax naa leen ko de bu nit ñëwul jinne yi ñëw kooku chaque jour ma wax ko ñu fi ne te dèjà jinne yaa ngi ñëw di indi nit ñi parce que xam nañ ne man rek maa mën ci ñoom dara amul kenn ku yàlla bind actuellement ki nga xamante ne mënoon la jinne dara. amul ku la ko fi wax lekk sa dërëm lekk sa xaalis ba pare teg si naan la dañ na te fekk dañut caay caay gi. waaw caay caay gi caay caay gi waaye nañ dem. waaw macha allah gis nga. fu mu nii nag jógal naa leen jëppet jëppet jëpp mag laa de waaye nag moom neel nii rek. ñaata at nga am. wuu mënuma ko sox wàññi. Mhm. wallaahi. yow. foo nag weesu na fa. xale bu jigéen bi la nag lan nga ko yàqal. wax dëgg yàlla fa yàlla rekk tax. Mhm. su dee bëgg nga dégg dëgg. Mhm. man xaw ma lu bon. Ah, xamoo lu bon. déedéet. ok. xam nga kañ laa ko topp. yaayam ba mu ko ëmbee. ba ko yaayam ëmbee. ba ko yaayam ëmbee. waaw. ma gis ni bu wàccee ci àdduna ku nara a sonn la ku nara a ko nar a sonal. ndax bopp bi daa fees dell. dëgg la. ma wàññi xam-xamu bopp bi. Mm-hmm. yaayam ba ko ëmbee dafa doon dem rooti. Mm-hmm. yenn ab paan. Mm-hmm. jumbax ba di feeñ. falaa jaar. mbokk yi gis ngeen moo tax. moo tax nag jigéen su ëmbee. war a nëbb ay cëram ay xale bi nag mm-hmm. <laughs> bu muy dee di faral def boppu neen waaw nee dee di muur bopp bi lu yéeme laa leen di wax nii mbokk yi jinney wax de defe man jinne maay wax wallaahi lu yéeme laa leen di wax mooy lan dafa bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu ndax dënn bi dañ koo xaatim alxuraan ba mu fees waaw seen famille mm. famille yaayam mosuñu koo am Hmm. ku tuub. Hmm. mais moom ab tuubeen la wala. tuubagul de. ah tuubagul ak bu ko gis noonu mu raciste. Hmm. yii. ba foog moom sa wax ko ko day mer. waaye ma yëpp yàlla la moo nekk ci moom. da ngeen mbokk lii lu yéeme la lu garaaw la. macha allah dënn bi. waaw wallaahi billaahi. dañ koo xaatim alxuraan ba mu fees. Ah, xam naa li tax ma dugg ci moom. set. dafa set. dafa set. nee naa leen jinne du dugg wala kaana. jinne du dugg wala kaana de. dugg ku tekkiwul dara dugg ku tekkiwul dara. képp man maa wàññi man maa wàññi sa xam-xam gi nekk ci moom bopp bi. Mm-hmm. mais jëkkëram tamit baar yàqaloo ko dara wala da nga koy jàppale. wala mm-hmm. yàlla. si at tëtëtët cee nu ma laa wax sax lii. jëkkëram. dimbali ko ko waaw mënu ma laa wax sax lii. waaw baax. fu mu commencé moom la xol bi dafa rafet. am na baat bi nga xam ne dénku naa ko su ko bàyyee. Mm. dina tekki ba foofu te dinañ ko dégg. Mm-hmm. wax nga dafa doon yëngu ci wàllu ab làmb. moom. waaye dañ koo yàqal. Ah. te wax naa ko fa mu jóge waaw mm-hmm. ah, dafa doon bëre. da doon bëre ñu mm-hmm. yàqal ko. wax naa ko fa mu jóge xam nga sutura dafa baax. waaw looloo tax ma defee ko fee yëpp mission bi. waaw xamal leen lu baari. xam nga ñu bon ni soo leen xamalee dañuy bëgg a sànq xale bi. moo tax nag ma def lii ci moom. Hmm. mbokk yi dégg ngeen. yow. Hmm. wuñ sax boo ko foree ci ab mbedd. Hmm. tubli si ñaan si. <laughs> mu nangu. loolu moom nga daal ko koy takkal mu dem yoonam. loolu moom laa budda la lépp lu ñu wax suñu gémmiñ yàlla da ci def barke. yàlla dalaa rus nag lu ñu ci wax suñu suñu borom da koy def. lépp lu ñu wax xanaa lu ma waxul. waaye lu ma génnee fii. na nekk lu baax rek. jamono nag day dox. waaw de yii nii nii amuloon. waaye lii yëpp amuloon. lii de amuloon ndeysaan. ak wala lii ay yëpp amuloon. yii nii ngeen téye lii lan la nii. lii micro la mbokk yi <laughs> lii mooy micro. waaw. Ah, ndeysaan ci àdduna. mbokk yi gis ngeen jinne bi xam nga ne kii ku yàgg la ci àdduna fekkee na jamonoy sëriñ tuuba fekkee na macha allah euh, jamono yonente bi sallallahu alayhi wa Mm-hmm. kon na xam nga ne kii dafa yàgg. macha allah li ñuy wax yàgg. bawul dara te yàgg nag yow tamit. man yàgg. danaa yàgg mm-hmm. ndax ku la fexeel sànku ku la fexeel sànku. ku la fexeel sànku ku la fexeel sànku ku la fexeel sànku ku la fexeel sànku ku la fexeel sànku loolu de yàlla moo ko ko waxloo man Thierno Moule. mo uyri ley hewtan taala mo uyri dow uno man nag soo soo di wax noonu nag damay kontaan nag <laughs> kon bi xanaa sama wax bi dikk na mooy lan àdduna yëpp loolu la ñuy gën a bàyyi xel ci li ngay wax ah waaw parce que dafa am fu ma ko teg fu fu leer xoolal gis nga nag lekkati kese gis nga kuy lekk xorom boy de kuy lekk xorom kuy lekk xorom kuy lekk xorom <laughs> kuy lekk xorom dina bi dëggal ko léegi lekkati kese naxuti bay de. ah ma ne. gal gal gal ubbi li làmb de. roof gal gal ni nga koy waxee. ubbul làmb de. man na ah. gaawal nag na nga yeewi ma nag mbokk yi yeewi ma léegi nag ndax ñii nag soxla nañ gone gi torop waaw ah. léegi macha allah dégg ngeen lu jinne bi wax. te ndeysaan nee naa borom këram mu baal ma àq. Mm. ndax lu tax. waaw àq dafa foor. waaw ndax xañ naa ko jabaram. noo ko xañee jabaram. ah. ñeenti fa nii ma toog. waaw xañ naa ko jabaram. Mhm. looloo tax ma ne ko mu baal ma àq. ndeysaan jinne bi lii c'est grave ah. ñoom ñëpp baalu naa leen àq. baalu nga leen àq. wallaahi billahi baal na ah? moom baalu na la la. kan na ma kay. baal la sama xarit la. Mhm. léegi lii léegi sama xarit la buñ ma fa nekkee ñu naan ma maam booy maam booy loolu rek lañ ma daan woowee. <laughs> maam booy man leen di defal nag ay comédien xoolal man nag. xam na lan laa bëgg. Hmm. soow rek. soow rek. fii moom macha allah fii kër sooween la. ma xam loolu. moom fii moom dañuy naan soow ba dugg boîte vocale oh. macha allah. léegi waaw sama gars yi lan ngeen gis euh, lan ngeen gis rapidement. après waaw euh, kon defe naa ni yéen a sur la TMS TV di télé bi feeñal lépp lu woon defe naa ni kàddu yi fi jóg euh, yéeme na mais liñ ci gën a jàpp rek mooy. li ñuy wax ci tubaab saaliwulu extraordinaire parce que ñii ñëw fii euh, xamuñu xamuñu sëñ bi mosuñu gis sëñ bi jinne bi moo leen indi ba fii ci kër sëriñ Alaaji Thierno Moule Sow donc defe naa ne loolu c'est important ñu préciser ko wax na fi également que jinne yi que wax na fi également jinne yi espace yi ñu dëkkoon seen espace yi ñu doon nekk nit ñi dañ cee dëkk comprendre nga euh, nekk na loo xam ni vraiment. ab lan lu bant mooy la. nekk na loo xam ni aussi vraiment lu euh, yat lu doy waar la. Ah, et mm. te te njurukaayam. yat yat mooy lan foog mu leer boo nee ab yat kay. dafa naroon yàqu parce que leer a fallu mu am doom. ak keneen mu am doom ak keneen. Cerno nag jinne yee ko yar de bu daan dem ci àll bi sax dañ koy surveiller ñu yëg ci kaw yi garab di ko xool moo ne ab ndaw la de jaam ñi mënuñoo nangu li ko yàlla may moo ne dawoon na di jóg di daanu Cerno mi waaye gëm yàlla tax la lay wax la muy def yàlla lay jiital ndax nit ñi mënuñoo mel ni moom di jiital yàlla kii kenn mënu koo dab ci àdduna ku ne danga koy dab sànq sa bopp te maa ngi maa ngi leen di xamal nag àdduna gi ay waay nañ bàyyi jëf ju bon ji man jinne maa ko wax de nañ jëf ju ñaaw ji nañ bàyyi jëf ju yées ji li baaxul de toogal léegi kon Saliou dégg nga jëf ju bon jëf ju ñaaw ji kon mbokku Sénégal defe naa ni Guinée bi li mu wax fii également lu am importance la euh, fii lépp lu waay rend ci loxoom lay nàcc loo def lu bon ci nit ki rek sa kaw lay këpp liggéey yi ñuy yónnee nit ñi yu bon yi ñuy def nit ñi euh, defe naa ni loolu ci ay kàddoom aussi nekk lu am solo mais li ci li ñu gën a jàpp également njurukaayam dafa naroon yàqu ba Guinée bi mooy wax que nee na dafa dugg ndaw si pour mu am doom euh, ci loo xam ne hors mariage si tubaab pour mu mën a njurukaayam mun a mucc mais sinon bu deful woon loolu kon bëtutu njurukaayam day yàqu li ci liñ ci gën a jàpp également mooy jinne bi ñii xamuñu fii xamuñu le xalifa général moo leen yo indi ba fii ci kër gi kon defe naa loolu c'est important ça veut dire que sëñ bi toujours ñu koy dégg ci ay kàddoom que jinne mi même ku xamul sax fii jinne yi dinañ la conduire indi la fii ba ci ba ci ba ci kër gi kon defe naa ni yéen ñu sur sur la TMS TV donc euh, ñaanal na sëñ bi wax na aussi que sëriñ bi kenn la ci kaw suuf na ko àdduna ñaanal parce que li ko yàlla may moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf mooy la xalifa général the king of sa king defe naa ni fii lay tàngee mais fii lay seddee affaire bi fii la donc euh, ma delloo la rek kàddu

donc les parents ou de, la dame ici parce que son mari ne connaissait pas Thierno Moulay Sow euh, la sœur de sa maman aussi ne connaissait pas Thierno Moulay Sow mais c'est le djinn qui les a incités à venir ici et le djinn maintenant euh, qui a révélé donc tant de choses sur le khalife général lui-même qui a dit que le khalife général est vraiment quelqu'un d'exceptionnel que les Sénégalais peut-être ne connaissent pas euh, très exactement il a révélé plein de choses et il a montré donc moment donc de contentement devant le Khalif général des djinns il a eu même à danser donc devant le Khalif général des djinns euh, disant qu'il était vraiment satisfait d'être ici devant le Khalif général des djinns euh, donc que le Khalif général des djinns donc était vraiment le meilleur en sa matière il a même expliqué que donc il a suivi euh, cette demoiselle depuis euh, que sa maman était donc euh, enceinte donc il s'est introduit au niveau donc de de, de l'ombril, de l'ombril donc sa maman donc qui était enceinte et là maintenant nous voyons donc euh, la demoiselle exactement peut-être le djinn est un peu hors de lui qui vraiment elle-même elle aime trop le khalife des djinns donc elle saute de joie sur Khalif General de Jin parce qu'elle l'aime trop. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, we're a very uh, particular moment right now in the Khalif uh, General of the Khalif General of the Jins and right now it is uh, minutes Uh, you know, uh, past 3 uh, a.m. right now, and we're a very particular moment. Mm-hmm. Right now, what the jinn is saying. this very lady possessed by a jinn, you know, this jinn did his best to bring the member of you so as to because this gene does understand that is the best marabu in this very world as far as genes are concerned. the kings of all the kings. You see? Uh, whose name is Paulina Gomez, possessed by a jinn. the jinn was dancing here, being so happy. And you see right now, it is Paulina talking. the gene is no longer talking. That's Paulina herself, is a Christian, so happy to see the Khalif General of the genes. You see that what is happening, really incredible, really unbelievable. You see that Paulina Gomez, uh, crying right now, weeping because she does love what the Khalif General of. nga gis Paulina Gomez nga xam ne moom chrétien donc mu ngi jooy parce que Euh, li mu gis xalif général day jën mu kontaan ci trop yaa ngi ko gis mu tëb song xalif général ngi de jën nga gis sax ki nga xam ne moo di rakk yaayam moom tamit mu daal di jooy parce que donc moment bi c'était un moment fort un moment d'émotion donc nga gis ne kii ku bëgg xalif général day jën ku ko yàgg a suivre la depuis YouTube malgré donc li ko jinne dugg bi mu jinne bi xawee génn tuuti rek nga gis nit ki nu mu tëbee songu xalif général day jin mu nekk lu doy li nga wax am na solo am na solo trop macha allah li ñu fi gis tey c'est c'est c'est c'est émouvant daw na yaram te boo xoolee moom chrétienne la elle s'appelle Paulina la sœur de sa aussi chrétienne la ñu ñëw ci fi nga xam ni ay jullit ñoo fi nekk rawatina the king of the king muy le médecine roi traditionnel international di le général des jinne di Alaaji Cerno Mule Sow di la bourreau de dëmm nga gis mu laxasu ko ne da koo bëgg defe naa ni loolu lu am importance la lu am solo la euh, ci li ñu scénario bi ñu bu seetaan fii day wane que ni rek suñu borom mooy maye suñu borom mooy maye te suñu borom bu xasee ba maye jeex na kon taal bu yàlla taal sànni ci mat rek ngay def parce que loo ko fay fay fay safara bi dalay lakk defe naa ni loolu lu am solo la et c'est important Effectivement, c'est très important, Moustapha Fall. Mm. Donc nous voyons donc, euh, je ne sais pas maintenant si je dois dire Paulina ou exactement le djinn, de toute façon la personne est euh, donc couchée euh, au niveau donc de la salle de consultation du Khalif général des djinns. Et on essaie de voir maintenant euh, la suite. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, I was just explaining. waaw mm-hmm. ah, dafa rocceeku waaw moo tax waaw moo tax ma waxee noonu waaw dafa rocceeku Hmm, donc, euh, le djinn, l'esprit, donc, était tout simplement sorti un petit moment du corps donc, de la dame. Et donc, la dame qui est revenue en elle-même a pu donc reconnaître le Khalif général des djinns et s'est sauté sur lui-même à cause donc d'un moment fort d'émotion parce que cette dame qui est une chrétienne donc est quelqu'un ou bien quelqu'une, je dirais, qui aime bien le Khalif général des djinns. Maintenant, nous voyons, c'est comme si peut-être le djinn est revenu, on voit les gestes. Donc, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire millionaire, ladies and gents. That's what we're living here right now in the Halif General, you know, house. You see then this very Christian lady whose name is Paulina Gomez, you know, who is possessed by a jinn right now. When the jinn just got out, uh, just a very, you know, short moment, you see then this very Paulina Gomez, you know, jumping on the Halif General of the jinn, saying that she does love the Halif General. She does like the Halif General of the jinn, you know, because what the Halif General of the jinn is doing right and is so, you know, important, is so really interesting interesting. You see then, the Khalif General is looking at her and seeing, we see then the person, you know, lying down, that's the spirit coming back. We're gonna see what will happen. Maybe the Khalif General will just, you know, make him talk a little bit and then try to know the name of the jinn and then try to know the name of the spirit and see exactly what he can do and what he has destroyed to this very lady. And then after maybe convert him uh, in Islam and then give him a name and then make him out from the body of this very lady. So I will let the floor to the Khalif General of the jinn, the kings of all the kings, and then we will see, uh, you know, how he will do with his very uh, spirit. ba léegi trois heures passées de trente et quelques minutes yéen ñu la TMS TV fii ci kër le xalif général des Djinn. Hmm? Hmm. songu. am na solo am na solo ñu ñu préciser que sànq jinne bi xawoon na génn ci la daw laxasu la mu am leer bu dugg ci moom gis nga euh, léegi nag ñëw na jàkkaarloo ak direction bi euh, ngeen ñu suivre su la TMS TV fii ci kër xalif général des Guinées hmm? hmm? hmm? waaw chrétienne la mi ngi elle s'appelle Pauline mais mi ngi sujjóot ci kanamu direction bi ngeen ñuy suivre ci la TMS TV kon mbokk yi ngeen gis ni Guinée euh, lu garaaw a garaaw a garaaw la jinne yi ñooy ruube fu ne ci kaw suuf euh, lii nag je pense que c'est normal parce que bu ñu demee ba ci kaw suuf jinne yi fi ñu waroon a dëkk nit ñi dañ faa dëkk defe naa ni problème day am te bu ngeen déggee ci ay kàddoom sànq moom jinne bi wax na ko sax sànq nee na fi espace bi Guinée yi doon dëkk nit ñi dañ faa dëkk bay tudd sax la président Macky Sall donc defe naa ni loolu aussi dafa am solo ñu koy xamal également askan bi que jinne yi presque. Euh, amatuñu dëkkuwaay. ñooy ñooy ñooy taal marché yi jinne yi ñooy daaneel élèves yi ci école yi te ba léegi gis nañ ni école yu baree baree bari xale yi tout temps dañuy daanu te foofu aussi defe naa ni il faut que ñu mel ni ku mel ni El Hadj Thierno Moule Sow la xalifa général dem fa def fa li fay def jinne yi dem tànk loolu amul élèves yi dañu ko ne di daanu muy Dakar ci Kaolack ak fu ne école yu baree baree bare xale yi ñu ngi fay daanu ba tey may wax ak yow nii léegi rek ñu ngi ñuy annoncé yàggul tuuti marché euh, Pikine mi ngi tàkk. fan yee marché Kaolack également presque chaque mois mu tàkk. te dafa euh, loolu boo ko gisee souvent jinne yi ñoo koy taal da ngay gis kër goo xam ne également tout le temps dañ lay wax ni kër gi day tàkk te kenn xamul lu koy taal. kon nga gis ni jinne nekk na lu garaaw a garaaw a graw pour la société sénégalaise jinne yi ñooy ruube ñoo lëmbee askan bi. manam daal ñoo téye le monde entier man jinne gis nga li ma def nii ban jinne mooy dugg si fii bu bon laal li déedéet xale bi gisaane da koo xaw a sonal te bëgg ko moo tax ma raxas ko fii maanaam danga koy def muy gisaane. dama ko bëggoon a def muy gisaane waaye xool naa ba xool bëggul moo tax ma ñëw fii jël ndox mi raxas bopp bi salab ko ci bët yi su ko defee nag mu bàyyi ko ndax nag nee na bëggul te man jinne bëgguma amel kenn àq ndagam jinne moo bëggul amel nit ñi àq comme nit ñi nañu moytu nañu moytu nañu moytu du lañ ne lañ lay toroxal dañ koo mën sonn rek ku ko mën ak ku koy jéem bokkul de ay yéen ñi nag li ngeen teg nii si sama gémmiñ kii ci ay àdduna mun a changé ah. kon yow xamoo woon lii nii. billaay xaw ma ko. xaw ma lii waaw xaw ma lii sax yi nii doy na waar. àdduna changé na de. kelul kii li mu yor nii lii lim doon. cey mm-hmm. waaw Moustapha léegi ñu gisee ak bi waxtaan ak ñoom ñu xool nan lañuy ñuy def pour ñu mën a génne jinne bi mm-hmm. mu daal di bàyyi soxna si mun a am jàmm mm-hmm. yow kese yaa nekk ci moom walla am na jinne la jinne la nu mu tudd moom. Moussa. anamu moom. looy. maa ko dàq jëppeet. yaa ko dàq. toroxal ko ba mu ne tot. musaa Moussa. toroxal ko ba mu ne tot. ndax man su ma nekkee ci moom. Mm-hmm. sàmm ko rek moo ma tax a jóg. loolu dong. Oh, yàqaloo ko dara daal. billaay yàqaluma ko dara. mais parfois est que doo ko feebarloo tuuti parce que xam nga. jinne ci laajal ay mbokkam boobu. Mm, waaw. gis nga amoon na loo xam ne. Mm. dafa ñëwoon pour dofloo ko. boobu daa demoon seeti benn magam. Mm-hmm. mu tëdd ba guddi. loolu ñëw. Mm-hmm. nga war a xale xale bi. Mm. ak am mayub yàlla. muy ñaan di woo yonente yàlla eesa yonente yàlla eesa def ko ay gént feeñu ko yor ab benn bant tàllal ko nii ci kaw ndox bi sotteeku mu raxas xale bi waaye comme heure bi sànku na ci ceenu àdduna jëf ci bon ji fi ne li may wax nii wax naa leen ko ba pare ñoom ndax xam nga sutura dafa baax wax naa leen ko ñoom xam nañ bu baax a baax déjà yow xale bi danga koy aar aar naa ko lu bari sax mm-hmm. aar naa ko lu bari lu bari lu bari lu bari lu bari lu bari lu bari lu bari mm. foo ko natt weesu na fa léegi nag pour l'instant nii danga bëgg a pare danga bëgg génn xale bi walla da nga ko bëgg génn. dama dëgg yàlla. dama ko bëgg a bàyyi. ndax gis nga bàyyi ko mu toog ndax xelam dalatul ndax danaan liy nekk ci man xawma lan la. dama daan toog sa ñëw ci ginnaawam naan ko demal géej jëli say bagage boobu ma bëggoon mu doon ab seetkat. Hmm. nga bëggoon mu nekk ab seetkat. waaye mu bañ. mu bañ seet lan seetu lan. gisaane ni. Hmm. gisaane bu demoon géej ga leket ga la fay jël. muy hmm. gisaane waaye nag mu bañ ne nanguwul bëggul moom daal nee xam nga lu mu taal jëkkëram doomam. ñaata doom la am ak jëkkëram. am na ñetti bant. bant. ñeenteeli bant bi nag. Hmm. juru ko hmm. moom xam na ci dara. dafa am benn waay mu daal di koy gis daal def ab liggéey liggéey ko ànd ak moom waaye dafa fekk ni boobu new ma ca moom hmm. ba ma ñëwee laa gis liggéey ju bon ja fekk boobu nag jàpp na ab biir. mënuma def dara. kooku bon. yées waaye fu mu toll nii. Hmm. xale bi bu jógee ngeen laaj ko da koy woo guddi woo bëccëg ndax sonn. kan kooku. maa la wax lii. gis nga doom jooju ba mu juddoo ñàkku sax defu ko ndax yaay ji daa jéppi xale bi ndax nee na jur yi muy jur te xamuñu xale bi ba muy wasin moo tax bugguma metti tegu ci moom maa ko dimbali muy mel ni kuy dem kabine ma daal koy def mu wasin ci duus ba xale bi nag ba mu juddoo moom dafa bëgg yenente yàlla eesa mu ne sama doom ji yenente yàlla eesa laa koy tuddee macha allah gone gi nekk nag tamit ko fees dell nag xale bi fees dell la def da daan xeex bay daan bañ koy daaneel crise moom kii moom xale bu ndaw bu tuuti bi ku tuuti kooku mm-hmm. waaye yàlla daa def nag mm-hmm. maa ngeen moom mm-hmm. ma dimbali ko aar ko loolu leer na sëñ bi day baax aussi ñu préciser. waaw ñoom ay chrétien lañ. waaw te defe naa bi ñuy dugg fii aussi. Mhm. war nañu gis photo abbé Jacques Seck. abbé Jacques waaw. xam na kër gi bu baax a baax. Mhm. te yàgg na jëflante yow. fii la jaar macha allah loolu c'est important aussi. Hmm? ah du gis nga photo bi booy dugg noonu. loolu defe naa ni abbé fii la jaar ñoo ko dimbali ñaanal ko. dëmm yeeg jinne yeeg yëpp ñoo ko toppoon nar ko faagaagal nar ko rey mu ñëw ndeysaan fekk ma sikaab mbaaw ñëw na fa ñetti yoon mënuma gis quatrième bi nag la sama rakk ne ah kii kat ab kilifa la ñëw na fi ñetti yoon mais mënula gis daal dafa sonn pour nga jàppale ko wallaay ci laa ko dimbali moom it nit la daf ma naan boole ak ay nit sax vraiment di ma woo affaire di ma remercier te loolu ba mu amee dafa dem seen dëkk indil ma dàmba damba damba kecax waaw macha allah. yàlla yokk ay leeram. defe naa ne boobu ba tey moo ngi moo ngi ne cocc. Hmm. wér plein. Hmm. gaa yi dañuy dañ ko naroon dofloo. Hmm. naroon ko faat carrément. parce que macha allah nit ñi bëgg nañ ko jullit yi bëgg nañ ko. waaw yi bëgg nañ ko. maanaam day wax alxuraan tout le temps day wax ci ay aaya alxuraan. xam nga nag yooyu boo koy def foog nga am ay noonu foog gaa yi bañ la xam nga Sénégal moom bëgguñu ku baax boo nekkee nit ku baax rek ku yàlla may rek dañuy fexe profito lem lemal la say bagage waaye nag bu mu ñëwee ñu taxawul ko sauver ko ñaanal ko suñu borom ba macha allah li ne ci moom yëpp dañ. wallaay mu am jàmm boobu ba tey heure bu saa suñu leen koy gis muy génn sorti ci télé yeeg. ci ci ci kii macha allah waaw léegi nag defe naa leer na Moustapha léegi ma wax ak mbokkam yi rapidement ñu seet nan la ñuy def ñoom ñu wax macha allah ba xam dañu bëgg a jinne bi ñu génnee ko wala ñu wax daal ah.